bisimillah mbokk internet yi dal leen ak jàmm kii lee di Mouhamed Niang di woykat bu siiw bu mag bi ñëpp xam muy woyalu cantaakoon yi moom la way takk der yi teg loxo te li ñu koy toppee mooy abus de confiance maanaam jëfandikoo kóolu te gu ñu amoon ci moom ba lekk xaalis su ndaw su jigéen su mu séqaloon di Mouhamed Niang te cantaakoon yi bëggu ko te sopp ko lool dépéré nanu ko ca commissariat de police bu ndaamaatu ca Touba te nag suñu mooy wulee dana jàkkaarloo ak moo ko topp ca yoon ndax daf ko nax triyande ko lekk alalam gu ñu xayma ci un million cinq cent xale bu jigéen bi ab faatu faatu sénégalaise la bu nekk ca Italie bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot moom ak Mohamed Niang dañu doon a bëggante bëggante guñ doon bëggante ñoom ñaar tax ba ndaw si am kóolute gu mat sëkk ci moom ca noonu ca la ko Mohamed Niang daal di proposé ne ko boo ma joxee un million ma defaraatal sa woto bi ba mu bees tàq ndaw sa yëkkati un million teg ko ca loxoom waaye ba nii furaas daamar ba kenn defaru ko ñu ne déete waaye Mohamed ñaane ndaw si dama lay jëndale ab terrain ca Bambilor ndaw sa yëkkati mille yu wow kong tegaat ko ci loxoom Mohamed ñaa ma doxoon ci diggante ndaw sa ak waaja waroon a jaay suuf sa moom waykat bi mujj naa am ab terrain waaye ndaw sa moom ma joxe woon xaalis ba dërëm fu seer sax séenu ko astam ak suuf xaalisam waxi noppi ca noonu ca la dankaafu Mohamed ñaa ndaw si ne ko fay ma sama xaalis mu mel ne bu ñenn ñi naan Alioune Sall suñu quatre cent mille ndaw si moom li muy wax Mohamed ñaa mooy sama un million cinq cent Mohamed ñaa bañ ba tëdd ca ca naaj wa te nan ndaw si yoree lu ma la ludul ab cinq cent mille dong ndax nee ndaw si un million yi mu ko njëkk a jox daf ko koo may yow way samba dana leer waaye mel ni ku nan tontu du forox ndaw si ne yàgg naa laa may te la ma la daan may musul weesu cinquante mille ak ay téléphone yu ma la daan jëndal di la ko yónnee mu jëntal ga ca la Mouhamed Niang daal di mujj nangu ne li ñu koy jiñ moo ko def Mouhamed Niang fanaan na guddeem gu njëkk ca prison bu Jurbel di xaarandi waxtu wi jot ba mu mën a jàkkaarloo ak juge bi fa mbaxana doonee benn fa la lépp a leere mbir mi lu ci ruus ci xibaar daan ci dellu si waat ak jërë ngeen jëf